المصطفى نويت ما يجدد de télévision culturel et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhoul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmo yi cérémonie yi Rafah TV amul ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel yaar ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement suñu dundu di jag nguuram gi du dog kii moo jara wek jaamu koy suñu sak suñu dundu di nguuram gi du dog kii jaamu koy suñu sak suñu dundu di jag nguuram gi du dog kii moo jarawe jaamu koy suñu sak suñu dundu nguuram gi du dog kii moo jara wet jamu koy suñu sak suñu dundu di jag lu nam mu am danga suñu ginnaaw bi nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi sant bu baax sunu yaakaar yi tey ak ëllëg Serigne Touba Ahmadul Khadim radiyallahu anhu wa nafaana allahu bi barakaati di am mbégte mu rëy lool ci teewe jataay bu mel nii di am xol bu sedd lool ci teewe jataay bu amee solo nii te muy jataay boo xam ni wuyu ji ci day warugar ndax sunu boroom subhanahu wa taala daa waxoon ci alquran ni ya ayuha allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli isa daakum lima yuxyikum yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla gëm ab yonentam suñ leen woo ci loo xam ni daa jëm ci yàlla akub yonentam na ngeen ko wuy ji te ku nekk xam na ni wooteb alquran moom mooy wooteb borom bi subhanahu wa taala mooy wooteb yonente bi sallallahu alayhi wa ndax yonente bi benn mission rek la amoon ci kaw suuf mooy lan jàngal nit ñi yar leen jàngal nit ñi yar leen te mooy mission bi ko suñ borom joxoon ni ko na nga fexe ba jottali ko ñëpp yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayk li ma la jox daal na fexe ba ñëpp jot ci moo tax keroog bam woote wootem ba ba woote ba yegg fépp bam daj mu dajale saxaaba yépp ni leen ndax jottali naa ñu ni ko jot li nga yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kon nag li ci des mooy ku fi jóge ci yéen na fexe ba lii ma indi woon mu jot li ko kaneen ko ko war a jot loola moo taxoon saxaaba yi tas ci mbooleem gox yi gox yi adduna bi di jàngale diine di yare di jàngale alquran di yare ndax ku nekk xam na ni bu demee ba tey jii ñu mën a toog fii di jàngale man a génne ab lim ñuy mokkal alquran la ko waral mooy ña ko yonente bi tegoon ci seen loxo muy saxaaba yi dañ caa bay waaru rëy rëy bañ fa jógee kenn ku nekk daa dem sanc daaraam doon ab sëñ daara di jàngale ak a yare loola moo tax alxuraan ak si tey ci sunuy loxo bu fekkoon ni taxawun taxawaay bu rëy boo bii kon tey jii laneen la ñuy yëngutuwaay du doon jàngale alxuraan ñu nuyu bu baax mbooleem mbokki julli di fi teew yépp di nuyu mbokki taalibe yi di nuyu mbooleem waajuru donga yi di nuyu donga yi tuttànk yi ak mbooleem sëñ daara yi fi teew nuyoo boobu nag ñu koy jël di ko teg ci loxo yi ki nga xam ni moo nekk ci bopp liggéey bi di sëriñ du njaay di amal liggéey boo ama am solo liggéey boo xam ni ci la fekkoon ay maamam daan ci yëngu mu fekk ay baayam di ci yëngu tey jii mu ñëw bay ci moom it laaj ci wu am solo nga xam ni li ñuy wax naan mujjee poussé bi mu réer moom loola dëlu ko ndax la ay baayam nekkoon ay maamam nekkoon ca doon ci liggéeyal sëriñ Touba bi ñëwee fexe na ba tool boobu booyut mu sof ca ab liggéeyam di liggéey loola moo waral suñ jataay bii su borom dafa ñu taw fi yëq ñu am lu toll ci ñetti xale yoo xam ni ñoo mokkal téere borom bi subhanahu wa taala tey lu rëy lool bu na amoon benn xale bu mokkal fatiha képp jar na lu ëpp lii bu fekkoon ni benn xale képp lan am boo xam ni faatiha képp la mokkal ci alxuraan jar nañu woo adduna bépp gaaral leen ko rawatina nag ñu am ay xale yu mokkal téere bi baqara ba minal jinnati wan naas alxuraan ak ni mu rëye alxuraan ni mu rajje alxuraan ak ni mu yaatoo ni mu nuroo ni mu jaxasoo nga gis xale bu ndaw bu amul fukki at man koo tàmbali baqara ba minal jinnati wan naas di ko tari loolu ndimbalal suñu borom la ak tawfiixam ak liggéeyu sëriñ Touba bu yàlla gërëm kon ñi ngi jël nuyoo bi di ko toog ci loxo yi Serigne Modou mu jot lil ñu ko mbooleem ñin seqal liggéey bi ñëpp bu ko defee nag ñuy sàkku ci képp kuy dégg suñu kàddu te woote bii taxoon laa jóg dagg sa yitte ñi ngi sàkku ci yow nga bàyyi li ngay def lépp te génn ci jataay bi bu ko defee ñu door liggéey bi ndax nan ko bëggee woon mooy bu nu àggee ci fukki waxtu tari bi tàmbali waaye sunu boroom ci dogalam nii la ko dogalee muy am nay retard ba fi mu toll nii waxtu waa ngi sori kon nag ñi ngi sàkku ci képp kuy dégg sunu kàddu mu bàyyi la muy def lépp te ñëw teewe jataay bi bu ko defee ñu tàmbali liggéey bi bu ñu demee ba ci kanam tuuti am na waxtaan wu am solo woo xam ni sunu mbokk Serigne Khadim Ndiaye Rachid moo ko war a taxawee incha allah rabbi bu demee ba ci kanam dana ñëw defal ñu waxtaan wu ama am solo ci biir lool it danan tànn ay bennat ci gone yi danan tànn ay bennat ci xale yi ngir ñu ñëw barkeelu ci ay ayatul alquraniya suñ ca noppee teg ci ñi nga xam ne ñoo wattu téere borom bi subhanahu wa taala ak mbooleem kàddu yi ngay xam ni mooy yi nga xam ni mooy jàllaat ci biir bu defee kon ñu njëkkanteeg waxtu wi di sàkku ci tout tànk yi ñu amuk dal te diglu képp kun woo rek nga ñëw yéeg ci kaw kon bu ko defee ñu dalal suñu mbokku suñu yunus di nuyu mboolem suñ daara yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ku mel ni Cheikh Basiiru Ndiaye suñ Saalihu Daraame ak suñ Moodu Wilaan suñ Mortala ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi rek bu ko defee kon ñuy sàkku ñëpp ànd ko dal ñu tàmbali liggéey bi bismillah auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله ليجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل sadaqallahul azim الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت فإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكسبون بالدين وإن عليكم لحافظين إلى من كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولم يومئذ لله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستغرسه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قالت اجعلني على قشائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نكره ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يهدلون هو الذي خلقكم من دين ثم قد أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مهردين فقد كسبوا بالحق لما فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يستوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وعلى تلك حديث موسى صدق الله العظيم أعوذ بالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب السراع ليقيس بهم الكفار وهدى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن هدى ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ميثاقه ويقولون يقطعون ما أمر الله ما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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم مصطفى نويت ما يجدد سنة رفا تي في votre chaîne de télévision culturel et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmu yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmer la diffuser la waaye boo bëggee itam ñu filmer la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel yaar ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement